si yéenekaay dañ koy tàmbaleeg yéenekaay bi nga xam ne moo di Sud Quotidien Sud Quotidien li mu xëtee si xëttam gu njëkk moo di mën nañ jàpp daal réew mi di Sénégal ginnaaw gi nga xam ne crise politique dafay am mën nañ jàpp ne économie ba dafa tàggatémbe la ko waral de moo di cantine yi nga xam ne day teel a tëj yi nga xam ne day ah, teel a tëj beneen bi mooy bi nga xam ne demeewul noonu looloo tax nag yéenekaay bi ne fi ñu toll ni nag mën nañ wax ne li nga xam ne moo nekk di xew buñ dina gën a am ay jafe jafe-jafe ñu jël beneen yéenikaay wax ca la ca gën a fës réew mi quotidien mu mel ni day feelu li nga xam ne moo di Sud Quotidien réew mi quotidien la mu xatee si xatam gu njëkk ñi nga xam ne daal ñoom ñooñee ñoo di collectif des syndicats euh, des syndicats opérateurs euh, télécom ñooñee nag démb dañ doon def point de presse yëkkati si ay kàddu ñëw si li nga xam ne moo di connexion bi nga xam ne euh, boobu ak tey dañ koy coupé yéenikaay bi nag lam ci moo di daal jàppal ne 6 juin 2023 ba fi nga xam ne foof lañ ca toll si 2024 jàppal ne maanaam ñooñee nga xam ne ñoo si wàllum réseau daal jàppal ne euh, perte nañ lu toll si 3 milliares yoo xam ne daal li tax ñu perte ko du kenn ku dul ne moo di maître Bokar Thiam moom mi nga xam ne daal mooy coupé li nga xam ne moo di internet bi loolu tax nag euh, ñi nga xam ne daal ñoo di collectif des syndicats ñoo ngi artu ne leen lii daal bu ñu ca jugalee jàppal nag réew mi di Sénégal économie bi dafay gën a euh, tagga témbe dañu jël beneen yéene kaay wax ca la ci gëna fess l'observateur la mu xëtee ci xatam mu ñëk modi Karim may sawad mom nak lam ci wax modi Karim euh, comme une euh, résurrection yene kay nak lam ci wax modi di tolni euh, Karim may sawad bu ñu xolé dal li nga xam ne la nekk ndax nekkul ne kenn ku frustré wu lam ci wax modi di nam nam nekkuma si bi nga xam modi Sénégal man ma ngi fa nga xam mo ci Qatar naam bëgguñu manam ma ñew manam si mi di Sénégal way nak jappal ne politique bi mom mënuma sé baña ñak lolo tax nak yene kay bi ne bu nekké ne jamono gi daal dañu reporté ñoom euh, la am looloo tax nag bëggul sénégalais ñoom ñoo ñee euh, ñu dem si li nga xam xam ne daal moo ca foore ñeent ñi nga xam ne ñoom lañ ca jàpp jàppal nag ñoo ñee ñoo ay jafe-jafe euh, si li xam ne moo di banlieue bi dañu jël beneen yéenekaay wax ca la ca gën a fës dañuy dem si li nga xam ne moo di la turbine la mu xëtee si xëtam gu njëkk moo di nag tey lam ca wax moo di fi toll nii ñoom ñoo ñee ban décision la xaar ngir joxe li nga xam ne daal mooy seen xalaat si li nga xam ne moo di reportum élection yi yéenekaay bi nag lam ca wax moo di fi toll nii nag jàppal na ñi nga xam ne ñoo di seet saa ñoom ñoo ñee dañu am ay responsabilité ngir war a yëkkati nga xam ne moom la ca wax moo di fi ñu toll nag bu nekkee ne li nekk si xew bi maanaam li nekk si xew si réew mi dafa am ay jafe-jafe tension bi di jukki yéen kaay am nag lam ca wax moo di fi ñu toll nii sept sages yooyu daal dañoo war a taxaw temm wax seen i kàddu dëgg jëlal benn yéen kaay ca la ci gën a fës enquête enquête la mu xatee si xatam bu njëkk fi ñu toll nag jàppal ne li nga xam ne moo di am si bi ñi nga xam ne daal ñoo di APR ñoom ñoo ñu nag ko naam démb secrétaire exécutif bu national bu APR nag ñoom dak ñëpp ànd nañ si li nga xam ne daal moo di amnistie bi nga xam ne euh, buñ ko defee réew mi di Sénégal crise gi dina fi jóge leneen li nga xam ne moom lañ ca mën a andi Amadou Ba moom mi nga xam ne moo di premier ministre bi moom moomee confirmé nañ ko moo di doon candidat Benno Bokk Yaakaar ca élection yi nga xam ne moom lañ ca jëm yéen kayam nag leneen li nga xam ne moom lañ ca andi moo di euh, président de la république moom nag yëkkati na ay kàddum jëmale ko si li nga xam ne moo di communauté internationale bi nga xam ne jamono gi euh, dañu koy xalab dañu jël beneen yéen kaay wax ca la ca gën a fës dañu dem les échos les écoles la mu xëtee si xatam gu njëkk moo di jàppal ne am na beneen forom boo xam ne juddu na moo di bébé ñan ñoo ko taxawal naka jàppal ne maam Biram Waaj xam ne dañoo nekk si réew mi rawatina doon ay journaliste ak i chroniqueur ak ñeneen maanaam ak ñeneen nga xam ne jàpp moo di réew mi di Sénégal jàppal naka li nga xam ne moo di maanaam suñu wàllum démocratie dañ li nga xam ne daal moo di reportum élection jàppal nag forom boobee judd nag jamono gi dañoo taxaw temm ngir li nga xam ne daal mooy démocratie démocratie yu Sénégal loolee ñu euh, respecté ko leneen loo ko wax ñi nga xam ne ñoo di syndicaliste yu Sonatel yi Free ak euh, am jafe-jafe moom moomee jàppal ne euh, ginnaaw gi nga xam ne daal dàq nañ élection yi te mu nekk nekkoon candidat wu li nga xam ne moo di Benno Bokk Yaakaar Amadou Ba nag jàppal ne confirmé nañ ne moom moomee daal mooy doon li nga xam ne moo di candidat Benno Bokk Yaakaar bu ñu sukkandikoo si les écoles leneen li nga xam ne moom lañ ca mënti wax moo di maanaam amnistie bi nga xam ne daal moom lañ ca wax jàppal ne waa APR amul kenn koo xam ne bañ na ko ndaxte dañuy njiitum réew mi Macky Sall loolee lu baax la ngir réew mi am jàmm ñu jël beneen yéene wax ca la ca gën a fës le quotidien la mu xatee si xatam gu njëkk moo di journal ma jàmbal gi ne woon euh, conseil des ministres euh, bu suba gi euh, maanaam bu ne moo bi maanaam projet bi ndaxte yéeyu si yàbbi si li nga xam ne mooy mooy ci conseil des ministres maître El Hadj Diouf doonoon candidat waaye nag doon avocat moom nag démb daa euh, def na point de presse lam ci wax moo di nag jàppal nag bu nekkee ne dañoo dem euh, maanaam dañoo def amnistie maanaam si réew mi di Sénégal yéen bi nag lam a euh, ko wax maanaam yéen bi nag lam ca ca wax moo di fi toll nii moo di xolli ni nga xam ne exécutif noonu lay joué li nga xam ne moo di justice bi ndaxte dañoo jàpp ne réew mi dafa am crise yi maanaam nu leen neexee ñu jël bi ne yéeni wax ca la ca gën a fa fës dañu ñëw si li nga xam ne mooy si source a ah ca Touba jàpp nag jafe-jafe yi nga xam ne am na fa ginnaaw gi nga xam ne manifestation amoon na fa honorable député Cheikh Thioro Mbacké moom moomee nag mën nañu wax fi ñu toll nii dafa moo di euh, Serigne moom mi nga xam ne mooy kàddum li nga xam ne moo di Baye Fall yi ndaxte ñoom dañoo jàpp ne dootuñu nangooti Touba ak Mbacké képp koo xam ne dafay jukk di manifester ñu jëlaat bi ni yéeni kaay wax ca la ca gën a fës le réveil moom la mu xëtee si xëttam gu njëkk moo di daal conseil des ministres bi am njiitum réew mi Macky Sall amul fenn foo xam ne yëkkati na fay kàddu ah, jàlle ñett xale yi nga xam ne ñàkk nañ seen i kenn si manifestation yi nga xam ne moom ah, maanaam moom ah, moo fi amoon yéeni kaay bi nag leneen li nga xam ne moom la ca wax moo di fi ñu toll ni jàppal ne njiitum réew mi Macky Sall conseil des xam ne nag yëkkati nañ ay kàddu wax si nag si li nga xam ne mooy jafe-jafe yi nga xam ne am na si réew mi la réveil le jour maanaam le réveil journal ba tey leneen li nga xam ne andi na ko moo di les candidats spoliés ginnaaw gi nga xam xam ne ñoom ñooñee nag jàll ñu woon demoon si njiitum réew mi Macky Sall nan la ñu defaat ba bokkat si li nga xam ne moo di si course bi njiitum réew mi Macky Sall mu mel ni ne yéene kaay bi da koy fàttali kàddu yi nga xam ne moom la ca waxoon moo di moom moom mais yéyu ca yàbbi ca amu ca benn décision boo xam ne moom lay joxe conseil constitutionnel ñoom rek ñooy wax kan mooy bokk ak kan moo dul bokk waaye ñoom it ñooy wax élection kañ lay am yéene kaay bi nag mu mel ne ne fi ñu toll ni day fàttali ne njiitum réew mi Macky Sall décret bi nga xam ne moom la jël ngir dàq li nga xam ne moo di élection yi amul fenn foo xam ne fa da ko teg jëlaat benn yéene kaay wax ca la ca gën a fës soleil moom la mu xatee si xatam gu njëkk moo di daa démb daal jàppal ne ca conseil des ministres ba njiitum réew na si li nga xam ne moo di jàng bi wax ak ki nga xam ne moo di Cheikh Omar Anne moom nag lam ci wax moo di fi ñu toll nga xam ne am na si jàng bi maanaam mu teg waaye nag njiitum réew mi Macky Sall leneen li xam ne it moom la ca bëgg moo di fi ñu toll nii daal fi nga xam ne mooy si euh, université yi maanaam étudiants yi nekk fa nekkin gu am solo ñu jëlaat benn yéene kaay wax ca la ca gën a fës yor yor moom la mu xatee si xatam gu njëkk moo di report élection présidentielle bi jappal ne euh, forum bi nga xamné judduna modi forum pour la défense euh, de la démocratie euh, bobé nga xamné ñom ñoom ñooñee dañoon taxaw ndax té buñ ko xolé ay chroniqueur ak journaliste ñoo si ne ñoom ñooñee jamono gi daal liñ bëgg modi ay élection am ñom naka jamono gi nag lañ ci wax modi nañu def le touba ba continuer li nga xamné modi manifestation yi té dañu japp ne réew mi Macky Sall bu 2 avril jallé jappal ne kookee président de la république bi benn yéene kay wax ta la ci gëna fess dañu ñëw ci li nga xamné modi la la DPS tefes la mu xatee si xatam gu njëkk moo di Touba ba ca Mbàkke euh, coole nga xam ne judd na fa ndaxte euh, maanaam sëriñ euh, Dame Soda moom nag fi ñu yi moom mi nga xam ne moo di porte parole Baye Fall yi ndaxte jamono gi dañ ne dañoo yoo xam ne daal jàppal ne Touba ba ca Mbàkke dootuñu fa may kenn koo xam ne day manifester loolu tax nag honorable député Cheikh Thioro Mbacke moom moom mi nga xam ne responsable politique la fee nga xam ne moo ca Touba mu yëkkati na ay kaddu ndaxte moom dégg na ne ki nga xam ne daal kooke moo jiite li nga xam ne moo di Baye Fall yor seeni kaddu ñoom ñoo ñee dañoo bëgg ñëw fi maanaam fi nga xam ne moo di këram taal ko waaye nag a Cheikh Thioro Mbacké lam ci wax moo di moom moom nga xam ne Touba la dëkk te maam moo njëkkoon doon premier chef de village fi nga xam ne moo di Touba li nga xam ne daal moo di ormay Touba moom nag da koy respecté waaye nag lam ci wax moo di fi te Touba ak Mbacké te nag bu manifestation amee Mbacké moom moomee dasee dem ye mu mel ne Cheikh Thioro euh, fi nga xam ne ñoo féete ca ca a document boo xam ne moo ca génnoon euh, Krépin Diatta ginnaaw gi nga xam ne euh, maanaam Côte d'Ivoire éliminé woon na Sénégal mu yëkkati ay kàddu ne ñi nga xam ne daal ñoo ca ne ca wàllum euh, na communiqué bu génn ne dañ koo daan fi toll nekk jàppal ne fédération sénégalaise football ñoom ñoo ñëw yëkkati nañ ci ay kàddu ñoom nag lañ ci wax moo di ba fi toll nii amul benn document wala kàddu yoo xam ne mën nañ jàpp ne kaaf googee teg na ko si ki nga xam ne moo di Krépin Diatta leneen lu doy di ay supporteru Sénégal yi nga xam ne euh, ginnaaw gi nga xam ne Sénégal toog na ba tey dañoo amoon ay jafe-jafe ñu toll maanaam ñu toll si 68 te ñoo ñëpp ko jiitale ñoom naka dañoo amoon ay jafe-jafe ñibbi si fi nga xam ne mooy si réew mi euh, bu ñu sukkandikoo si yéenekaay bi lam ci wax ñu toll nii ñoom ñëpp dina leen rapatrier ngir ñu mën a ñëwaat fi nga xam ne mooy si réew mi dañ koy jeexalee li nga xam ne moo di oja oja la mu xëtee si xëtam gu njëkk mu mel ni fi ñu ni nii daal ministre euh, Bocar Thiam moom mi nga xam ne moo yor wàllum communication bu ñu sukkandikoo si oja syndicat télécom bi nee nañ ko jamono gi na nga arrêté ndaxte yaa ngi tax askan wi di ñàkk si lu bëri si wàllum koppar waaye nag ca beneen wet ba maanaam askan wi ñoom it yëkkati ay kaddu ne maanaam ki nga xam ne moo di ministre Bocar Thiam bàyyi li ngay def ndaxte données moom moo ko tey nag njiitum réew mi Macky Sall moom moo ko tey askan wi di Sénégal dañoo war a connecté wu au nom de quoi heure bu leen neexee ngeen coupé li nga xam ne moo di internet bi njabite lii moo ñëwoon si li nga xam ne moo gën a fës si à la une